waxal kon lii ay kon la ñu ngi fi nekk ay kon. association ganga association sana ɗumen jaaduɗene mbiɗoɗen no dental ngal on waɗan ɗum jaade ala goto tan nde dental ngal ɓeyda hannde on jiani hokkiranoma ɗo guerte hokkiranoma ɗo engrais ji tananga ko coɗɗe ɗi ko ina weeni walla ɗum ha en daro kadi daroɗen enen ɗo mboolo jooɗingo ngo daroɗen nangiran en toxida darade piɓliɓ ganduɗa ko on woni maky sall daroɗen nanguiranen mahamed dien e nder commune e beele jiihen koye men e nder fedde men se darima enen ɗo han wonɓe ɗo fof darani ɗen enen fedde nde saabu ko mi haala ko boyo haali ko joni ko fedde wallitta politique saabu hannde sen darima ɗo wiɗen en mbatta politique wona nden kamita hannde kam dari ari min joɓata anan ko vraiment aduna ko weltat ɗum nano naro ɓen nanguinano gon noon sukaaɓon ɓeɗo e sukaaɓe fulde dari ɓe kam won fi kam ne akawno dinayi jappalante ɗin yëpp ma mujjee ci wolof bi ma ñu jàppalante suñ commune bi taxaw ñu jël pee ñu dellu fi ñëw jël nañ pee bu bu ñu indee fii xaalis ñu jox ñu ko ñu jigéen ñi dañuy fay normal aussi ñu ko def c'est dans la salle de délibération de la commune de Fass-Sétienne avec euh, l'ensemble des membres de l'association de l'émergence pour la commune de Fass-Sétienne dont le président est notre frère Baboudien qui avait initié ce mouvement dans le cadre du développement pour la commune de Fass-Sétienne. Donc nous avons jugé à ce que on se réunit chaque année au moins deux fois. Et depuis euh, la mise en place de cette association, effectivement, le bureau s'est réuni à plusieurs reprises. Donc, on s'est dit qu'il est normal que euh, l'association, pourquoi pas en tant que euh, une structure qui répond les normes d'une structure et en communication avec ses membres. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes là, dans la salle de délibération, pour essayer de partager euh, le bilan de l'activité de l'association durant les périodes d'un an qu'il a mis à faire. Pour cela, nous avons eu à d'abord, euh, depuis la création de l'association, il y a de cela juste quelques jours, ça ne fait même pas 15 jours, on a constaté des dégâts en ce qui concerne la latérite qui relie Kungel Makayop dans euh, à l'entrée de Kungel Sosé. Nous avons constaté que les populations ont de difficultés pour passer. Et pour cela, l'association a pris ses initiatives, a fait des sensibilisations à l'endroit de la population pour qu'ensemble, qu'on puisse faire à ce que les gens puissent traverser, parce que c'est la seule piste qui permet de relier la Gambie, les, les populations, les autres communes vers Kungé. Et ça, les gens ont pris des engagements fermes, ils l'ont fait à moins de deux heures de temps. Et ça, c'est l'association qui a pris l'engagement de faire tout ce qui concerne, en ce qui concerne les dépenses, y compris la restauration. Suite à ça, l'association aussi a fait à donner des semences à ses membres à la hauteur de 100 tonnes euh, avec des prix subventionnés. cest à je parle du prix subventionné, c'est là, c'est-à-dire euh, comme l'État le faisait, mm -hmm. l'association aussi a pris ses engagements. Il a fait des démarches jusqu'à donner ses membres, ces semences-là à des prix subventionnés. Pour tout ça, euh, il a fait encore, il a donné encore à ses membres des semences. Des semences euh, j'ai parlé des semences, mais plutôt des engrais. Des engrais. Ouais, des engrais à des prix subventionnés aussi. Je peux dire que euh, celui qui a reçu les semences, celui-là aussi, on lui a donné des des, des, engrais. Donc, ce qui veut dire que l'association est en train de faire, euh, d'atteindre son but. Parce que le but de l'association, c'était de faire que cette commune soit une commune émergente dans le cadre du développement et que, vu les activités que j'ai commencé à citer, on voit que des actes de développement. Et nous avons terminé euh, sur un point qui est important, à savoir que l'association a fait des démarches, mais c'était en fin de l'hivernage, pour qu'on puisse reboiser la commune, y compris les lieux publics comme les autres lieux. Parce que nous, pour nous, le développement ne faut pas y aller sans euh, l'environnement. Ce qui a fait que donc on a fait des démarches et on a pu avoir presque euh, 2000, je pense que 2000 arbres pour donner à ces populations pour qu'on puisse faire ensemble le reboisement. mais il s'est trouvé que c'était un peu tard. Mhm. Donc nous avons jugé ce soir sur ça pour que l'année prochaine, on puisse entamer ça très tôt et qu'on fasse cette activité-là. Et enfin, de conclusion, dans le troisième point, nous avons dit en tant qu'association, quelle doit être notre perspective dans les jours à venir mhm. avec les séances électorales que nous sommes en train de euh, d'aller vers, vers ces séances-là. celui, qu'est-ce qui va être notre position par rapport à ça C'est ce qu'on est en train de discuter. Nous avons commencé d'abord sur les activités que nous avons faites et que les gens sont en train de poser des questions pour que dans l'avenir qu'on puisse faire mieux. Voilà, c'est en grosso modo ce que j'ai à par rapport à ça. donc euh, fii ci Fasteken nekk fii ci association mouvement d'émergence pour Fasteken ki ñu jàkkaarloo ni di Babou Dieng moom mooy coordinateur bi tey nag fekk nañ leen fii ci saal di délibération bu mairie bu Fass Cekkeen ñu am benn ndaje bu mag bu ñoon def pour mën a jàngat liñ jotu def ci seen mouvement bi mais encore tim waxtaanee li xam ne tey mouvement bi war na ko taxawee ci élection yi jëm mu élection présidentielle yi xam ne mu war am le 24 février fi tey jii nii fii la campagne bi démarré kon balaa ñu démarré rek dañu nuyu baabu bàyyi la nga nuyu mbokk àdduna wax ni tuuti tey ci bisu tey bi ndaje bi comme ni ko juma waxee dégg nañ ko nu ko suñu grand seen yi waxee dégg nañ ko am na solo trop ci li ngeen jot liggéey ci ci commune bi dem ngeen sama génn commune parce que tey route bi jaar euh, xam ne nekkul commune Fass dem mais day dem ba dugg commune Saly lan nga ñu mën a wax ci li ñuy wax loo ci yokk bala ñu dugg ci waxtaan bi. waaw di wax asalaamaaleykum maa ngi nuyu mbooloo mu toog fii yëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant aussi ñu ngi leen di jégalu bu baax ci dérangement bi jamono bi ku ne xam na ne jot yombul. Hmm. aussi di nuyu borom dëkk. du nuyu monsieur le maire de la commune de Fass Cekkeen di Mouhamed Dieng honorable député aussi di nuyu son adjoint di madame la madame la maire Koumba Dieng ak euh, conseil municipal seq liggéey bi yëpp di wax ne résultat yi nga xamante ni moom la commune bi di def résultat yu extraordinaire la euh, vraiment yooyu itam maxtaan ñu ngi lay sant bu baax ndax sa disponibilité ku ne gis na ne ci département bu Koungheul fu information am rek yaa ngi dem pour jëli ko di wax ne bisab tey bi mu ngi nekk le trois février euh, le premier février la dajee bureau bi bi nu dajee ñu waxtaan ñu ne daal pourquoi pas ñu woote réunion bu mag boo xamante ni suñu ko dajee dinañ mën a def euh, résultat yi nga xam ne moom lañ jot guma def ak lu ñuy xaar ci kanam ci loolu ci la ñu résumé ñu ne euh, bi ñu taxawalee suñu mouvement bi ak léegi yàggul euh, ndax ñu ngi ko taxawal daaw bi ñu ko taxawalee même pas trois mois ñu comme la route de Saly Escale pont bi mu amoon problème pont Koungheul Socé bi mouvement bi moom moo jël engagement dem si euh, euh, nit ñëpp population yi ak membres yëpp convoqué ñu ñëw ñu defar ko aussi yàlla dimbale ñu ñu defaat suñuy jéego ba yàlla dimbale ñu ñu mën a am semence bu toll ci 100 ak engrais ñu mettre ko en place ci disposition wu euh, membres yi association bi. kon loolu ay jéego la yoo xamante ni jot nañu ko def ci moyen d'un an aussi ñu envisagé woon bu def benn reboisement. mais balaa ñuy jóg boo fekk na li li des ci hivernage bi bariwul woon. Euh, vraiment demoon nañ ba am nañu arbre yeeg yëpp am nañu ko mais ñu xam ne bu ñu ko jëmbatee te tawul mën na yàqu ñu ne kon léegi pour quoi pas ñu bàyyi ba année prochaine. kon loolu wax dëgg yàlla ñun bu ñu mën di def loolu am na ay kilifa yoo xamante ni ñoo ñu nekk di jàppale euh, jiitu ci euh, le député le député maire Mohamed Dieng. aussi am na ñeneen ñoo xamante ni tey ñu ngi ci kaw au niveau national. ñu ñuy jàpp ci mbootaay bi kon loolu yëpp ñu ne kon pourquoi pas euh, échéance yi ñu ñu dëgmal euh, ñu waxtaanee ko ñun ñëpp ensemble amul kii xaaji fii kii xaaj ñëpp ñu booloo ñu xool naka la ñu mën a waxtaanee ba déggoo si ne euh, sunu kuréel gi nañu jàppale ci candidat yi war a jongante pour présidentielle yi 2019 le le 25 février ñu ñu xool ban candidat la ñuy jàppale boo xamante ni bu ëllëgee. ñu ni tamit euh, candidat boobu ko yàlla joxee mu gañe réew mi wax dëgg yàlla mu mën a jàppale ñu itam suñu suñu suñu mouvement bi ba su ñu mën a def développement bi nga xam ne moom la moom la commune bi xaar si ñun ndax bi ñu koy taxawal am na ay problèmes yu bëri yoo xam ne cité woon nañu ko lu ci mel ni tey boo demee ñu ne dañaa bëggoon bu naaw amee yàlla yàlla bu mu am mais su amee mouvement bi mën a jóg am lu mu mën a dajale pour yóbbul ko koobu tey lu mel ni suñu juumaa ak suñu jàkka yi fu ci nekk am na loo xamante war nañ ko fa def yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ni mu ngi ñuy xaar kon bu ñu jàppalee candidat ba mu gañee bu ëllëgee kooku dinañu mën a dimbale ba ñu li ñu bëgg a def ci développement ci wàllu commune de Fass Cekkeen ñu mën ko def ci wàllu département de Koungheul. ok est-ce que mouvement bi mën nañu xam moment bi ñaata nit moo nekk ci mouvement boobu. Euh, actuellement. Euh, li li nga xamante moom mooy membre yi nga xamante moom moo composé mouvement bi. Euh, c' est plus de trois cent personnes. yoo xamante ni actuellement ni adhéré wu nañu ci mouvement bi. ok léegi da ngeen a jàppale fii gis nañ ne juróomi candidat ma fi nekk. Macky Sall ak ñeneen ñi mu àndal ñoom fii rek doon comprendre yéen fan ngeen nar a taxawee kan ngeen nar jàppale ak lan ngeen di xaar ci ki xam ne tey moom ngeen nar a jàppale. waaw comme bureau bi en tout cas keroog li nga xam ne moom la bureau bi tënkoon euh, ne bu ñu ñëwee moom la ñuy wax membre yi. mooy ne na nañu jàppale le candidat Macky Sall. ndax euh, keroog loolu la bureau bi tënk waaye nag bureau bi ñoom ñoo tënk mais li nga xamante ni ñoom ñoo koy dogal. fii lañ koy approuvé ci salle bi quoi. moom fii ci salle bi fii lañ koy approuvé. Mhm. te gëm naa ne euh, ñi fi nekk ñëpp incha allahu rabi euh, feuille de route bi ñu teg bureau bi teg ko jàpp naa ne ñëpp dinañ ko suivre ndax wax dëgg yàlla ñun ñëpp benn lañu. Euh, boo gisee yow boo duggee fii li nga fi gis da ngay xam ne ñëpp benn lañu. Hmm. lu kii bëgg rek moom la moroomam bëgg. te fi ñu bëgg fi ñu bëgg a jëm ñoom comprendre nañ ko mooy la développement de Fass Cekkeen kon euh, je pense que euh, li nga xam ne moom la bureau bi tënk mooy le première février mooy ñu jàppale le candidat Macky Sall ba yàlla jox ko ndam li gëm naa ne incha allah rabi conclusion yi loolu loolu rek lay mën a doon. ok mais lan ngeen di xaar ci moom parce que tim nit boo ko jàppale yor mouvement. am soxla te seen liggéey yëpp social la mooy ndimbalante tu la plupart état moo gën a am doole mën di jàppale tey ci ngeen jàppale bu gañee lan ngeen di xaar ci moom ci ban côté ngeen gën a soxlaa mu jàppale leen pour Fass Cekkeen mën si gis boppam euh, jërëjëf Makhtar question bi am na solo di wax ne wax dëgg yàlla euh, premier mandat wu le président la République commune de Fass Cekkeen gis na ci boppam ndax tey boo xoolee réalisation yu am solo yoo xam ne ni commune bi def na ko tey su koy mën a def c'est parce que président de la république moom moo ci teg loxoom tey boo xoolee tey Fass Cekkeen Koungheul yoon bu baax moo mën naa ne département de Koungheul Koungheul moom mooy yoon bi gën a baax ci ci ci yoon yi euh, waaye nag du tee nag ñu ne euh, nit ki loo koy defal defal du tee am na yeneen yoo xamante ne ay priorité la ñu ñu tàllal ko ci loxo lu mel ni tey courant bi tey dëkk yi dëkk yépp bu ci nekk soxla na courant kon loolu nekk na loo xamante ni nguur rek moo am doole boobu Euh, aussi fii ay baykat rek ñoo fi nekk ñu fexe ba population yi ku ci nekk euh, nga mën a su bay jotee nga mën a am semence ba mu doy nga mën a am engrais ba mu doy ci ci ci lu yomba yomba yomb te loola wax dëgg yàlla lu am am solo la. machine yi machine machine aussi. comme matériel agricole bi. Mhm. Euh, motorisé matériel agricole motorisé aussi. ñu fexe ba euh, commune de Fass Cekkeen département de Koungheul ñu ñu ñu bàyyi leen ci xel bu baax a baax. waaye nag du tee nag. ñu ñu ñu reconnaître ne président de la république. Euh, li mu def ci commune Fass Cekkeen ñun gis nañu ko. Mhm. xanaa li ñu wax rek di continuer di taalal suñu loxo lu mel nii. Euh, jafe-jafe yi nga xam ne moom la waa population yi di am moom xam na ko ndox mi wax dëgg yàlla am na dëkk yu dëkk yi des pour mu am ñàkk mu amul ndox bariwul mais yëpp ñu combler ko euh, courant bi daal mu am euh, hôpi ñu mën a fexe ba Fass ci boppam mu am hôpital poste de santé am na fi mais bu mënee am hôpital aussi day gën a baax rek ndax fii boo xoolee frontière la Gambie ak Fass Cekkeen parce que dara doxu fi frontière la aussi ñu may ñu aussi ñu am beneen yoon boo xamante dafay jógee Fass Cekkeen dem euh, Aynoumane dem ba Bamba Thialène euh, dem bi foofu aussi trajectoire la boo xamante ne bu am am solo la yooyu yëpp kon ñu fekkee ne ñun xalaat nañu ko mais pour mu mën a réaliser wu ci Macky Sall lañ ko yaakaar dëgg yàlla muy lam solo commune bi euh, wala ñu wala ou bien le plénipotentiaire taxawal na comité électoral am campagne bi tey la ubbi mouvement bi nan ngeen nar a ànd ak ñoom wala yéen ci biir comité électoral bi wala da ngeen bëgg du bay seen saw bopp di liggéey wala da ngeen nar ak ñoom liggéey waaw bu fekkee ne tey comme njort bi ma am ne euh, membre yi dinañu dina dinañu euh, dinañu valider euh, ne nañ soutenir candidat Macky Sall mhm. jàpp naa ne su bu paree dinañu toogaat ñu xool ban même membre yi ñoom ñooy ñoom ñooy jox ay mandat ay nit yoo xamante ñoom ñooy jóg takku taxaw ba bu ñuy ànd ak le maire ñu ànd ak le maire te loolu laa yaakaar ànd ak le maire ànd ak population yëpp xeex bi mu nekk benn xeex mooy cent pour cent rek. cent pour cent Macky Sall cent pour cent. ok Macky Sall cent pour muy lu am solo Macky Sall cent pour cent mooy kàddu gu mujj gu président bi di nekk ci mouvement bi lan nga ci tëj looy tëjee looy yokk loo ci tëjee lu ñu laajul te bëgg nga ko wax ci ndaje mi. waaw xanaa comme li ma ci li ma koy tëjee rek mooy di sant yàlla bu baax. Mm-hmm. di wax ne ñun mënuñu dara. Mm-hmm. ndax li ñu wax lu euh, tey yow gis nga li fi nekk. te mën naa la wax ne euh, démb démb la ñu convoqué nit ñi mm-hmm. démb. à 11 heures lañ commencé di convaincre nit ñi tey euh, démb le 2 à 11 heures tey le trois à à 11 heures nga gis li nga fi gis nii kon c'est parce que ñu li ñu li ñu nekk di def euh, yitteel yitteel na population yi kon su ko defee ñun ñoo leen yoreel sant ñoo leen yoreel ngërmande aussi ñu ngi leen di jéggalu bu baax aussi di di di sant aussi suñu waajur euh, muy le maire Mouhamed Dieng ndax tey li ñuy wax lépp loo xamante ne ñun ñu ngi koy def rek ginnaaw yàlla moom moo ñu si fital ginnaaw yàlla moom moo ñu ci may kàttan ginnaaw yàlla moom moo ñu ci may ndigal lépp lu ñu nekk rek moo ci nekk te itam kenn ku ne xam na ne engagement wam ver Macky Sall ku ne xam na loolu. kon mën nañu wax ne tey mouvement bi tey mouvement politique la tey. waaw jàpp nañ ne incha allah rabi dinañ jàppale daal le candidat Macky Sall. le candidat Macky Sall jërëjëf.